Hello, hello la Mifa, j'espère que vous est cool. Alors merci et bienvenue sur notre chaîne YouTube Kenza 221. Bien sûr, la chaîne qui vous fait vivre les meilleurs moments du game. Donc, jusqu'à présent, vous vous êtes pas encore abonné. Damane, abonnez-vous et n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors, tay nak dañuy wax ci ben jeune rappeur. Et comme j'ai l'habitude de dire, je underground yi ñun rek ñoo leen mën a jàppale mais ci nan ñu génnee sang wala vidéo ñu partagé leen lien bi partagé seeni track ngeen may leen nopp te tamit bàyyi leen xel grand yi ñoom am nañ lu ñuy am ba pare loolu ñu ñëpp teg nañ ci seen ñuy bët donc underground yi ñun rek ñoo leen mën a jàppale. ba tax na nag tey dañuy wax ci ki nga xamante ne ni moo di Matador Junior wax ci benn sound na boo xam ne c'est intitulé Saltel Game bi expliquer et détailler après tamit ngeen mën a wax seen xalaat ci commentaire yi léegi ce qu'on va faire c'est de dem xooli un peu rek sur ce sound ñëwaat léegi léegi let's go. Hey, rang mi gaaw bu xaar ak ñan e kandu Hey, rang mi ok gars gis ngeen tuuti ci euh, sound bi eh, essai intitulé saltel game bi kii nag mooy Matador Junior boo leen xoolee sound bi rek ba lire bi automatiquement di nga xam ni sound bi kat ego trip la que ni Matador Junior dafa ñëw ci sound bi tagg boppam yéegal boppam ba ci kaw wàccee rappeur yëpp ba ci suuf léegi premièrement dañuy wax ci li nga xamante ne ni moo di bit bi Matador Junior xaw ma ku la joobal sa bit bi mais walaay joobal na la lu nice bit bi dafa neex lool sax teg ci boo leen bàyyi xel bit bi day am lum lay jox je sais pas ba xam seetaan ngeen film Squid Game mais suñ doon jouer musique bi moo doon daw ci suuf donc vraiment mention spéciale au beatmaker bit bi neex na lool sax deuxièmement ngeen xool artiste bi di Matador Junior c'est un rappeur très talentueux te dafa am technique aussi perso je me dis que ni lancé bi mu commencé ni bu ko continuer dinañ ko dégg fu sori parce que nag talent baa ngi fi bien sûr mais talent dong doyol, foog nga si job ak gëm-gëm soo amee talent te jobo sam waay ça sert à rien du tout du la jariñ dara Se kom comme si nga am arme rek te amoo bal amul lu mu lay amul benn sens ci non nag gars yi ba leen ki nga di matador junior mu ngi e wax ko sa ni kana du bàyyi man maay teg fii maay tëj fii mujjee fee teew njëkk fee gis ngeen fi dafa utiliser ben technique d'écriture bu wax altération en i parce que lu mu wax rek amna de mot i comme bay gay tej fi njëkk ak siw technique d'écriture bi lañu wax altération mais ngeen wat ko mu ngi naan man may relève gal sen, xar sama tanku tubay ba gem bi saf par force gis ngeen fi dafa ego trip nee na moy relève gal sen, mana moom mooy dem ba tey gem bi ci ay loxo moom moy dem ba nek king du gal sen. donc ego trip la dafa tagg boppam mais yemu ci gaay parce que mu ngi naan aussi mën rab comme néew beeg taal bi fii name dropping la def ci ki nga xamante ni moo di néew bi mais aussi ak ki nga xam ne moo di taal bi xam ngeen néew bi moom dafa mënoon rab macha allah taal bi aussi pareil dafa mën rab moo tax mu jël exemple ci ñoom donc gars yi sound baa ngi nii l'auteur est Matador Junior wax vous conseille de ci moom koy sound et c'est intitulé Saltel Gambi. daw abonné sur sa chaîne YouTube Matador Junior sur sa page Instagram sur Facebook vous pouvez ko bu baax may c'est un jeune très talentueux. alors guys c'était ça la vidéo du jour avec votre Kenza 221 n'oubliez pas de vous abonner d'activer la cloche de partager mais aussi de liker comment sur le choses sur Instagram selon le nom de Kenza l'officiel ma page Facebook Kenza 221 sur TikTok Kenza National et sur Snapchat Kenza Diallo allez puis seen la mifa, restez bien connectés dinañ ñëwaat léegi léegi wax ci keneen ak gros bisous à vous et à la prochaine